asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk internet yi Senfootball TV nuyu naa leen bu baax jeex leen di am mbégte saa su ne dafa leen vidéo pour ñu ne maanaam Mouhamed micro bi dinaa jégalu si vidéo bi parce que portable laa ko defee sama caméra baa ngi sama caméra bi moom fii sama micro baa ngi fii mais loolu leen bëgg a jox information yi vite fait naa ne donc dinaa jël micro bi xam donc defaraat vidéo bi au mu gën a leer si nit ñi mais comme que bi dama ko bëgg a tontu ay questions yu bëri yu xamante ne ñu mekkee laaj ci commentaire yi si concernant suñu gaynde yi

am na yeneen tasatu xibaar yoo xam ne xamal ne Pickford gardien bu bu Everton ak Martinez waa Chelsea bëgg nañ ko mais Martinez moom dafa bëgg bu ñëwee Chelsea wala sax feneen mu titulaire jamono bi nag Martinez boobu ñuy wax muy gardien argentin bi waa Manchester United ñoo gën a nekk si dossier bi donc à voir ñu ne Edouard Mendy mën na rester vie performance xamante ne Kepa moom nekk di ko def euh, ñu bëri si waa Chelsea te ay taskatu xibaar yu nekk foofu noonu xam nga donc ñoo ngi xamal ne. il peut bu fekkee salaire bi nga xamante ne Edouard Mendy jox nañ ko mën na reste loolu mooy dernière information yi nga xamante ne am naa kat si suñu gardien bi Edouard Mendy si on avance un peu par rapport à notre défense rien n'a bougé en hein. du du euh, du Abdou Diallo du Kalidou Koulibaly on n'a pas de défaut yu bees si côté je pense pas de dinañ bougé concernant Ousseynou Ba bon li fi amoon moo fi amoon noonu li mu fi waxoon temps il passé ay nant lañ lay wax moom ak Pape Cissé mais xoolaat naa information jusqu'à présent Austin foofu bougé wul concernant Saliou Ciss aussi tamit ba tey dégguma ben rumeur dégguma ben information laajte n'a par ci par là jusqu'à présent gars y a rien Mon maa noo pourquoi pas dem Marseille xam nga donc euh, combler nekk benn doublure Martinez pourquoi pas mais rien ne bouge quoi franchement pour ñu may poser question Saliou Ciss dara xewul maintenant bonne soirée. nag def naa samay recherche Bouna Sarr bi nga xamante après gaañu gaañu mu wér mu nekk di entraînement du côté de baax mom nak nag euh, ñoo ñuy xamal ne bu fekkee am na club yu mën a dem c'est plutôt Turquie ak Serie A mais amul ay club yu filtré ñoo ngi on parle de Serie A Italie ak Turquie si ay rumeurs yu xamante ne man liir naa ko personnellement parlant bi ma defee gëstu concernant si Bouna Sarr si on avance un peu pro bu ñu waxee euh, peut-être si milieu terrain bi foofu aussi tamit rien n'a bougé ah rien n'a bougé ba tey suñu joueur bii di euh, keneen ki na laa ko mën a waxee Nampalys Mendy on parle toujours de Besiktas donc j'ai euh, le match Coupe d'Angleterre euh, fan yii donc euh, gis ngeen mu am ay ay minutes enfin maintenant à part Besiktas dégguma dara te Besiktas li wax dañ ne wa mom day libre déwén ñu mën ko jël récupérer gratuitement manam lu ñu fay dara salaire rek lañ ko jox ou bien ñu jël ko légui ni ñu jël salaire am ñu def ko en deux. Leicester fay benn partie bi beneen partie bi waa Besiktas fay fay ko donc loolu lañ nekk di wax mais à part ça loolu laa leen mën a wax a ñoom ay information c'est plutôt Pape Gueye Pape Gueye gis ngeen ne ça fait trois ans moom Olympique de Marseille gis ngeen ne transfert dafa am problème moo tax Coupe d'Afrique bi am na match boo xamante ne sax d'ailleurs jeu ko xam donc FIFA moo ko sonaloon moo ko kii amandé afay wax wax li ñuy wax ba ñu tegoon Modou Loum Diaz je pense que bàyyaat nañ ko mu joué ba mu joué compétition ba mu jeex ba ñëwaat match joué moom nee na ñu ko poser question par à ça nee lolu mom moom naka bàyyi ak dirigeant yeeg yooyu mais mom il est il s'est concentré à Marseille donte am na taskatu xibaar yu mel ni mel ni Provence wala yu demee noonu ñu naan il se peut ay club étranger ñoo intéressé wu si Pape Gueye temps passé Séville la ñu wax rien à encore filtré wax nañ fi Almeria mais Pape Gueye et son entourage dañoo bëgg rester à Marseille avoir nous nag dirigeant yi Marseille la bëgg parce que Pape Gueye nee na xamal na ne moom pare na pour waxtaan président ñu xool euh, bu ne waxtaan rek mooy prolongé wala jaay ko donc avoir lan mooy moo si mujj topp. bu ñu avancé un peu euh, dañuy dem ci attaque bi attaque bi lan lañ leen mën wax Ismaël Sarr wax nañ leen fi ay équipe yu dul jiyee wax nañ leen Aston Villa wax nañ leen Everton wax nañ leen Crystal place cette fois ci si taskatu xibaar yu ma yu ma lire dañ ne Crystal Palace ak Everton ñooy xëccakoo kii suñu gaynde bi di euh, Ismail Sarr Ismail Sarr pourquoi Crystal Place on sait que Zaha ici pour mu dem leerul bu dul ren di déwén donc muy international ivoirien bi et aussi tamit Vieira daf ko def priorité bëgg le joueur déjà que dañoo bokk origine du Sénégal donc euh, il connaît le prof profil euh, ku mu bëgg la aussi tamit xam naka du côté de championnat France Ligue 1 française donc ku mu bëgg la Everton aussi tamit Lampard dafa nekk si seize injectable à tout moment mën nañu ko daax et dañu ne problème Everton bi gën a rëy bokk na si offensivement parlant dañoo manqué ay joueurs yu xamante dañu andi punch mana andi puissance explosivité donc ñaari nit équipe yooyu noonu maintenant concernant aston villa eh, propos ak li ñu defoon ismail sa ñu bëri dañ ne loolu neexul ismail sa donc parce que xibaar yi xamante lire naa ñaari club yi lañu wax à voir nag ndax dem aston villa parce que aston villa secteur boobu mën eh, nañ dañ dañ ko bëgg renforcer leneen lu xamante dama koy wax eh, mooy que kii di euh, beneen joueur bi di euh, Nicolas Jackson Nicolas Jackson gis ngeen match yi mujj nii yëpp entraîneur bi Sétiens ancien entraîneur de Barcelone ba ci Séville du ko jox temps de jeu on comprend pas déjà rien nañu Real Madrid sans Nicolas Jackson donc euh, pas titulaire ñu ngi wax ne nag jamono bii kii di Nicolas Jackson mooy waxtaan maanaam moo ñu discuter ak lii di Southampton ancien équipe de Sadio Mané bi nga xamante ne à chaque fois dañuy jël ce genre de joueur di nekk benn dix quinze millions après le Réa, il y a 50 voire 110 millions, comme Visit Van comme Sadiman, Mane, Zampassi, il y a énormément de joueurs, vous savez, Diamond, il donc il connaît le profil, discussion amena. Euh, à savoir, à son villa, c'est le priorité, madame Ina Emery, maintenant, euh, par rapport à ce que vous savez, l'équipe de Villarreal, c'est ce qu'il y a, 60 prennent pour Djokhe. Donc, il se pose que c'est 60 et que je pense que janvier, quoi qu'il arrive, je pense que Nicolas Jackson, il est bouger Donc, le joueur, c'est plutôt euh, Dembasek.

y' a quelques clubs de Ligue 1 française aussi tamit ñoo ngi koy bàyyi xel mooy mii di Demba Seck bi xamante ne soxla na temps de jeu temps de compétition moo ko mën a andi équipe euh, du Sénégal donc mbokk yi mu nekk ay information peut être yu mu leen mën a jox hein, euh, mu concerne suñu gaynde yi euh, concernant Bamba Dieng Bamba Dieng actuellement on parle de de prolonger donte France Sénégal maa ngi fi ñu ne non moom équipe dafa mer effacé na ay photo Instagram man ci li ma mujjee lire Longoria est prêt à discuter avec entourage bu Bamba Dieng defal ko benn proposition proposition de contrat vu que joxe nañu Milik Juventus euh, vu que Bakambu dem na vu que kooku non Luis Suarez jox nañ ko Almeria donc na ñaari attaquant la ñu et on sait que euh, Alexis Sanchez 33 ans là, c'est pas un attaquant fixe c'est plus un joueur xam ne day xam dem.

énormément de club soxla la c'est normal donc y' a rien de nouveau concernant Iliman Ndiaye à voir équipe lay dem parce que man bo na mu dem Liverpool mais Liverpool dina leen attaquant bu hollandais bi xam donc à voir waa Liverpool la def et yeneen équipe yi est ce que dinañ ko sollicité je pense que euh, mercato bi di ñëw la gën a yaakaar Iliman Ndiaye bouger mbokk li ma ne ko dernier info mercato gaynde yi ci commentaire man ngeen ma wax seen xalaat ak seen gis-gis ma leen di jaay jëfal di wax ba beneen sur seen football TV.